jërëjëf Cheikh Fall bismillahi rahmani rahim auzu billahi min seytaani rajim communauté Mor de Rufisque ñi ngi leen di nuyu bu baax bu ñu ñëwee Tëngéej nag kàddu yu njëkk dañuy ziare population Tëngéej yépp ñaan yàlla ñi nga xam ne yàlla def nañ ay figure historique nationale lañ te ñu jiitu ji ñu ñaan yàlla yërëm leen jégal leen bu ñu ci limee l'honorable président mbay Jacques Diop ak fii ñu nekk nii Badara Mamaya Sène un digne fils de Rufisque un militant du sport mën nañ ci limaale ñëpp waaye ci communauté Mor tamit ñu fàttaliku bu baax le président Mawlud Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko xare ko àjjana li mu doon yëngu ci communauté bi yàlla na ko yàlla fayee lu ëpp njortam aljana limaale ci tamit ñëpp ñi nga xam ne dañu doon yëngu ci askanu naar te yàlla def ñu jiitu gi muy suñu papa yooyu ku ci mel ne Bëya Fall Makan ba ci Abdourahmane Fall Tilala ñi mujj génn ak le président Ahmed Dieng Assane Dieng ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal ñoom ñëpp di ziare seen njaboot parce que bu ñu taxawee fii tey ba mën di yëngu ci communauté naar parce que ñoom ñoo porté woon drapeau bi ba ca kaw a kaw kàddu yi nag day gàtt lool ndax euh, lii Cheikh Fall def ñu ñëw fekk fii moom frère Nderi démb waxtu wii ñu ngi ci HLM ci Chérif Bahayda dara mu doon def moom it guddi yonent bi mu nekk activité bu mag Sénégal daanaka ñëpp teewoon fa tey ñu ñëw fii Tëngéej bu ñu fi jógee ñi ngi jëm jàmm gën ñi ngi ñuy xaar ma bëgg nag félicité bu baax le président Adama Diagne ak toute la communauté maure de Rufisque délégation bi ñu àndal jarul ma ci dellusiwaat lim nañu ko sànq ku gis le colonel Baba Diakhaté ak Ahmed Sizal colonel Baba ñi ko xamul quand di dit colonel dans l'armée ñëpp xam nañ li mu signifié c'est un digne fils du Sénégal qui a représenté l'armée nationale plusieurs fois service bi mu mujj a dirigé ci yi mu bokk jàpp naa ne service civique national kooku tey bu yàlla dogalee mu ànd ak ñun ci communauté bi yàgg cee yëngutu waaye tey jii mu jël retraite am mënoon a toog këram yore kurusam waaye léegi biñ ko wooyee fuñ demee fenn sax te ànduñu ak moom day mer ñu gis également mel ni doyen Ahmed Sizal li muy liggéey ci alphabétisation bi ak langue xasaniya bi loolu tamit toujours dañ koy faral di wax le fait que tey yàlla nattuñu léeg-léeg ñu bëri ci ñun mënuñu làkk-làkk naar bi warul tee ñu war a nangu ne deretu naar moo nekk suñu deret mooy daw si suñu yaram et nous devons en être fiers la communauté maure a toujours joué un rôle important ci histoire au Sénégal te fi ñu toll nii ñu nit dañu am responsabilité liggéey loolu ndax mag ñi xàll nañu yoon wi yaatu na lool loolu nag moo tax ñu nit ñu ci yëngutu bi ñu tàmbalee liggéey bi ànd ci ak ñëpp bañ nañu ko ba kuréel gi nga xam ne moom la ñu yoree dañu ko tuddee fédération nationale des associations maures du Sénégal et de la donc kenn ku ci nekk man nga continuer yore sa association waaye dañu jàpp ne ñun association yëpp war nañu am un cadre boo xam ne unitaire et d'action ñu ciy bokk di waxaat di xalaat bi ci liggéey loolu mooy tax réew mii ñu nekk di yëngutu parce que tey jii ku ñëw gis Rufisque mobilisation bii xam ne yéen waa Tëngéej population Tëngéej nu ñu leen jàppe woon danañ leen bu gën a jàppaat encore parce que vous êtes fiers et vous maintenez la culture Mor léegi seede bi nga xam ne Cheikh Sidati mi wax au nom de la collectivité lébu dëgëral na loolu loolu moo tax quelque soit brassage bu ñu mën a am ak wolof yeeg séeréer yeeg pël yi nous avons la responsabilité de maintenir la culture et la position de la communauté maure du Sénégal loolu géwel bi doon wax nous sommes fiers d'être ce que nous sommes des griots mais nous aussi nous sommes fiers d'être ce que nous sommes des Maures entièrement sénégalais nés au Sénégal grandis au Sénégal et nous jouons notre rôle dans le développement de ce pays loolu moo tax bi ñuy tàmbalee di yëngutu ci FENAMOR fépp foo xam ne organiser nañu fa yëgal nañ ko état du Sénégal et président de la République yónnee na fa délégation fii ñuy wax ak yéen ñi ngi jantal le 15 dañu war a dem Kébémer parce que dañu jàpp ne tey état du Sénégal teg na ay instruments au plan économique pour accompagner toutes les communautés et les femmes maures qui travaillent dans la teinture dans la transformation des produits les entrepreneurs maures ceux qui travaillent dans la viande dans à la serras ou ailleurs dañu am obligation liggéey ak état du Sénégal pour que ñooñu ñu mën a améliorer seen condition de travail donc liggéey bi nekkul Lamine Bara nekk président Ndéri nekk président déedéet loolu amul solo li am solo mooy ñu liggéey ba fii ci Sénégal ñëpp xam ne naar yi dañu war a am seeni cër nous devons être dans toutes les instances de décision de l'État du Sénégal nous devons avoir des députés morts des présidents des conseils économique et social moo de grands opérateurs économiques moo des cadres morts moo tax fu ñu dem dañuy yëkkati suñu kàddu pour lancer un appel à tous les cadres morts à tous les opérateurs économiques morts ak jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngutu nañu ñëw ci association naar yi pour gën a wane seen bopp parce que loolu mooy tax réew mi ñu nekk ñu gën ñu ci jox cër gi ñu ci war a jox c'est ça notre mission maa ngi sant bu baax jigéen ñi vraiment mobilisation bi rafet na lool gis nañu taxawaay bi et nous sommes fiers de notre culture ñi ngi ànd ci délégation bi la présidente Dada Diop est ak ñëpp te bu ñu fi jógee également dañuy continuer jàmm gën mon frère Nderi je voudre réitérer ici mon appel il y a de cela deux mois bind nañu la correspondance wax la ne la bëgg nañu daje ñu waxtaan tey jii am na dossier yoo xam ne am nañ ko ci ñi ngi ci di bokk di liggéey en tout cas au niveau de la FENAMOR la porte reste ouverte ñu ànd ak yéen ñu bokk liggéey askan wi te xam naa sa engagement parce que xam naa li ngay liggéey Sénégal ci fi nga dëkk ci jëmbal ak ni ngay taxawoo askanu naar gi donc nous avons l'obligation historique de continuer le travail ci ay été démarré par nos anciens et nos doyens. Paix à leur âme pour ceux qui nous ont quittés. En tout cas, je te lance encore cet appel à partir de Rufus. C'est l'occasion pour nous, nous savons que nous avons et que nous nous sommes ensemble et nous travaillons pour la même communauté suñu président Ahmed Carrière léegi la fi nekkoon daf ñu jiitu ji jàmm gën moom tamit ñoo bokk liggéey bi sànq bi muy jëm fii jokkoon nañu ak moom au téléphone. donc nous la porte est ouverte fépp fu ñu dem lu ñu soxal mooy doomu naar amul kii konam si la bokk kee Fenamor la bokk non non kee CMS la bokk il faut arrêter ces divisions là nous sommes ensemble dañu liggéey ensemble pour l'intérêt de notre communauté. loolu moo am solo ñun ñi ñu ci nekk kenn ku ci nee am na ci loo yëngu am na looy teralee seen njaboot waaye teewul da ngaa bàyyi lépp di yëngu ci naar gi le président Maouloud njaay xaw ma ko mais keroog bi ñu demee siyaare ji les témoignages que sa population de Rufisque a fait sur lui ça veut dire que ñun dañu am obligation continuer liggéey boobu en tout cas c'est l'appel que je voudrais lancer et je voudrais remercier Cheikh Fall bi muy jël initiative di la woo yëguma ko so et quand je suis juste fekk la ci tribune bi ñu nuyoo bi ma yegaatee ne yaa ngi fi dama ñëwaat nuyu si la c'est ça donc notre disponibilité en tout cas je te remercie mon frère et pour ta présence ici remercier également le président Adama Diagne pour liggéey bi nga def fii ci Tëngéej en tout cas nous sommes à Rufisque et nous repartons satisfaits et nga ñëw ci au niveau national ñu bokk di liggéey bu ñuy déplacé wu di dem Kébémer ak feneen ñu waxtaan ci ñun ñu ngi waxtaan ak shérif yi tamit parce que askanu naar yi dafa wéeru ci shérif yi képp kuy shérif di sëtu yonent bi déplacé wu nañ demoon nañ bu yàggul Diofior seeti chef Chérif El Khair démb waxtaan nañu ak Chérif euh, Bakhayda dem nañu Louga waxtaan ak Chérif Aydara chérif yi nekk ci communauté naar bi yëpp dañ leen di wër buntu kër par buntu kër ku ci nekk ñu seeti la parce que ñoom seen kàddu àgg na foo xam ne ñun suñu kàddu yegguñu fa mais ku fi jóge fii danga war a nekk l'avocat de la communauté Maure bu leen nangu kenn séparé ñu nañu ànd liggéey pour l'intérêt de la communauté Maure maa ngi jégalu ci kàddu yi bu xawee dëng bu gudd mais lépp lu ci dëng ci man la mais jàpp laa ne ñun fu ñu nekk nous sommes fiers d'être de la communauté Maure et réew mi tey Sénégal dafa toll ci ay positions yu am solo xam nga ne ñu ngi jëm ci ay élections jëmaat ci yeneen réew mi toll fu am solo naar gi dañu wane war a wane seen bopp xool ñi nga xam ne ñoo bëgg a yor réew mi ñan ñoo ci taxaw pour taxawu askanu naar loolu mooy dëgg gi kenn ku ci ne ci ñun mën ngaa far la neex waaye fii bu buñ fi xasee yegg si kenn sootul solotul kii APR la bokk wala kële fële la bokk benn mubb rek ngay sol muy mubbu askanu naar bi c'est ça qui nous intéresse quel que soit président de la république bu fi nekk da nga liggéey pour la communauté moo loolu lañu bëgg loolu la ñu bëgg te loolu la ñu liggéey président Adama félicitations encore suñu soxna la trésorière euh, Natou va vous remettre l'enveloppe de la communauté euh, de la FENAMOR remettez ça à président Baba kontaan nañu lool euh, Adama vraiment toutes nos félicitations à la communauté à la communauté Mor Beye